Salut les amis de Sport TV, merci encore Gaïa de la confiance renouvelée, merci de vous des likes, merci de vous des abonnés, merci également Gaïa de baisser des commentaires, un hein. plaisir renouvelé chaque fois de partager des informations. Mbok Sénégal il fait pour les maintenir 14 régions du Sénégal, Rokuro Khadi, Gorgo Khadi, Ninglen Dia Dieufel, ñu nekk également ci la l'hôpital yi ci kër yi tëdd feebar yi am suñu borom fëgg seen bopp nga yow rek jàmm ñu nekk ci kaso yi aussi erreur judiciaire gi ñu def moo leen fa yóbbu suñu borom génn leen fa delluwaat leen seen i njaboot ñi delluwaat na suñu borom xar leen àjjana fi daw si gaay te yéexee on avance ensemble dans la magie de Sport TV l'actualité en continu actualité boo xam na gars yi ah, dañuy tàmbali wax ci nga mooy donc Cheikh Ndiour ak ceebu jën ah, <laughs> ak ceebu sénégalais wax ci également ki mooy donc kii di Moussa Niakhaté ak aussi Habib euh, Habib ak aussi ki nga xam ne mooy donc aussi ah xam ngeen ko ah, kii kenn doot leen ko présenté Moussa Wagué ak yeneen ponk yi mais laata boobu nag gars yi damay laaj ci ñaan yi ñan lañ ñaar ñi ñan lañ ñi xam football ñëw war ni li ma mën a wax daal mooy ki ñaan yi gars toj nañ Europe hein toj nañ Europe en tant que joueur hein mais aussi en tant que entraîneur moom tamit aussi am nañ jéego yu bari yu ñuy def maanaam sax aussi gars pour encourager ñi nga xam dañuy football photo bi gars 2019 la ki Victor Roque la ak agent hein kii mooy agent 2019 la euh, tey ngi ci 2023 mu nekkaat ni photo war agent bu wax plus rek lépp loo gëm rek yàlla mën ci jàppale gis ngeen ko donc le rêve devient une réalité Vitor Osimhen signé du côté de FC Barcelone pendant ce également waa Barça aussi ki xam ne mooy Joao Cancelo mi ngi jege Barcelone ab <clears throat> al ah, ab al maanaam après lañ leen ko fasa jox ah daal fi mu ne nii mooy déggoo bi di am diggante Manchester City ak FC Barcelone loolu daal yéen ma jaay wax donc mi gën di jege pendant ce temps également photo bi moom xam naa ne. dina neex waa Manchester waaye du neex waa Chelsea ki nga xam ne donc Mason Mount mi nga xam ne Chelsea dañ ko formé et gis ngeen ko fii ci photo bi ah, mu nekk premier match jogante xaritu ñoom ak waa Leeds ah, United ngeen gisee na donc <laughs> Mason Mount mi ngi reere moom de kontaan na daal xaw ma des mais yi booy bi booy bi gëm naa ne ah déwén euh, bu toogaatee Manchester City amul temps de jeu dafay jógee mu Julián Álvarez attaquant dëggantaan ak nii moom nag dafa jël risque toogaat Manchester City ren jii nii parce que aussi foofu la bëgg a dem am na proposition yu bëri comme que nag Alan moo fa nekk ah moo ngoog dina xaw xat ci moom ne pendant temps également suu dellu si waat na ah suu <laughs> ma tooñ gars yi ah xam naa ne gis ngeen vidéo bi bi Ronaldo di tooñe benn waaye bu sol maillot Sénégal mais aussi Ronaldo gis ngeen ko il est en forme ah pendant ça également les monarques nar gars milieu de terrain de won boal ali al ilal plutôt bu ñom Kalidou Rock Koulibaly gis nañ ko nebes ak ki nga xam donc nak ki Diminko Milinkovic Savic euh, signé na gis ngeen ko du côté de al ilal donc xaalis gu bëri lañ ko fay machallah allah fay Mitrovic également l'attaquant de Fulham aussi ñi di Wa al <coughs> ilal dafa lañ ko proposition dañoo bëgg mu ñëw nek sel attaquant 30 millions lañ tek mais Wa Fulham dal dañoo bañ gum pour dali bayiko mu daal dem Harry Kane sport bild moo sport bild nak moy media allemand yi nee ah, Paris Saint-Germain dañu wax Harry Kane Harry Kane bañ loolu la wax fimné ni nak nii ah, ah déggoo amagul digënté Bayern ak ñi nga xam moy donc Tottenham Paris Saint-Germain mi ngi ci course bi ba légui ñom dal lolou la wax né Paris Saint-Germain dafa def proposition Harry Kane bañ loolu daal sport bild moo ko wax pendant ce temps aussi ki nga xam ne donc Giovanni Lo Celso jaar na ah, Paris Saint-Germain donc ñew nak fi nga Real Betis ñu arrêté woon ko fa mom fimné ni waré Betis dañ ko bëgg conserver dañ ko bëgg jënd ki nga xam moy donc l'Argentin Giovanni Lo Celso ki nga xam nag mooy Openda gars yi nag déggoo am na diggante ñi di RB Leipzig ak waa Lens moom nag mu nar a nekk joueur bi gën a cher ci histoire Lens ah trente millions la ak ay euh, prime yu nekk ci ginnaaw donc ki nga xam ne donc Openda di fekk ji nag la RB Leipzig bu ñoom coach et manager euh, Babacar Ndiaye Hernan Lodi le brésilien mi ngi gën a jege Marseille gay yi da ngeen wax rek mais Marseille gars Marseille déwén dafa nar a kii de. la là. là. ni ma gis ñëpp ci équipe Marseille. C'est défense gëna bax baax milieu terrain bi gën wu autre chose gars Marseille ko ki nak également ah, de Dakar ñom dal gars ñom ñoo dal di ñi nga Agel un but à 0 quart de finale fas yéene dem joué ji nag euh, demi-finale donc du coupe du euh, Sénégal Ben lañ leen patal ah patal moo gën a ah. Moussa Ndiaye champion d'Afrique moo dugal à septième minute ki ngeen gis ni également gars mon mooy Modou Lamine Diatta mooy actuel meilleur buteur Ligue 2 sénégalaise moom it day dem du côté de la Finlande félicitations à lui mais day wane également gars yi que ne championnat Sénégal li ñu jël trophée gën na ko valoriser notamment championnat euh, local bi donc di on rek également football bi moom kay gagné trophée ci la bokk mooy moi a jaay sa équipe sa gën a jaay say joueurs gën a jaay également sa dëkk kii nag di Moussa Wagué gis ngeen moom ah, reprendre na nak nak entraînement yi mi ngi entraîné waat normalement bi xam dafa bëgg revenir au devant de la scène ah, l'ancien le Kuto hein, le euh, buteur sénégalais la coupe du monde en 2018 il a fait coup, Moussa pendant ce temps ki nga xam cher Nour mon gars il y Paris plat familial la il a neex mu ne sénégalais bu wax a 18 ans mon gars donc il est sélectionné pour le Sénégal mais il Italie jouer donc nañ ko pas xel de ah, mi ngi Paris également euh, di qui euh, dit. <clears throat> notre gardien Seny Dieng moom nga xam dafa dem du côté de Middlesbrough nee nag bon ambition loolu tax mu jóge fi dem fi mooy que ne Middlesbrough dañ ko wax projet boo xam ne projet bu jëm daal nag di Habib Diallo aussi ah mi ngi entraîné ak waa waajal boppam. club yi ko bëgg bëri na donc euh, moom tooga ba à Strasbourg ba léegi daal wóoragul Habib Diallo aka Bip Bip ah nekk meilleur buteur sénégalais championnat Ligue 1 française ah ba pare mbokk ci meilleur buteur yi moom ak ñoom Mbaye Diagne ak ñoom <coughs> kii di. donc euh, mu tëti Boulaye Dia ci côté sénégalais ki gis également gars yi di euh, donc Moussa Niakhaté reprendre entraînement yi ak waa euh, Nottingham Forest moom mi nga xam ne gars yi blessure bu métti moo taxoon gaaw daaw jiw lu bëri il est en forme gis nañ match bi mu def contre Brésil donc reprendre na Moussa Niakhaté Moussa Jaxase Niakhaté ni mu ko woowee gars yi nag image bi laa leen di bàyyil ah <coughs> image bi laa leen di bàyyil. par rapport ak entraînement baax ah <laughs> après naa dugal bu Real sànq dugal naa bu Real mais naa dugalaat gis ngeen daal eh, ay booy Pedri ngi de ay waay championnat Liga espagnol ren na naa neex de gars yi wéy leen di rek wéy leen di abonné on avance ensemble toujours plaisir de vous servir gars yi bu leen fàtte ci lien dem abonné ci Baba Show jaa ngeen